شهر وفي سفر حماني على ماه مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه bisub fukki fan ak juróom-ñett ci safar di màggalu Tuuba bis la boo xam ni ajaratu Mimi Kébé daf ko fonk lool di ko waajal diirub at mi ñaari fan rek des ci màggalug 2022 bi boo ñëwee ci këram gi nga xam ne moo nekkee ci tubaa lépp waajal nañ ko ci wàccaay wi moo xam ci bernde yi ak nekkinu gan ñi ak lépp lu ci aajow lenn lu ci nekk waajal na ko ut ca la gën indil ko gani Serigne Touba yi te di leen taxaw bañ màggal màggal gu mucc ayib li dalee ci ginaar ba ci giléem lépp fàggu nañ ko ngir matale cant gii ahyaaniyal baaxi bilaa yumaata wala tanaazuin wala shamaata ataaniyal baaxil kitaaban azama wala ulaaxi kulla man taazama anni jazaa waalidati wal waalida xayran kasiiran laa yasaalu xaalida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 bu jëmul ci màggal gi dangay xam ni mën na la rus di la déglu nii rek waaye du jàpp dara ci li ngay wax bu dee ku mu miinanteel sax danaa la daal nan wax ci màggal gi ak waajtaay yi ndax yegsi na ndax yitteem yëpp mooy saa su màggal gi ñëwee lim ca defoon daaw da koy fàtte lu mu bare bare nag ñun xam nanu tuuti ci lim ciy def lim ko jaral donte sax lépp doo ko xam ndax lu bare ci li muy séq ak nit ñi du bëgg kenn xam ci dara loolu nag mooy jëf yoo xam ni jëf yu ànd ak yéene waaye sellal jëf gi itam ci ki nga ko jëmale mu xam ni jëmmi sëñ Tuubaa rek moo tax moo tax saa su màggal gi teroo waxuma waxuma waxuma xéewal yi waaye day bëgg sax kër gi yees day bëgg ku dugg si ci kër gi gis ni danga fi gis ay meubles yu yees gis ay taxawaay yu yees yoo xam ni da ngay xam ni dara waralu ko lu dul waajal bis sëñ Tuubaa am ngeen wàccaay wi tam alxuraanul karim Cheikh Mamadou Mountakha mi fi nekk yàlla na fi yàgg te wér da cee feddaliwaat ndigali bu baax a baax ne ko waajuram yu tedd ya daan diglee alxuraan googu du dakk jàkk jaa ngi nii ngeen jàkkaar lool xam naa ni bu subaa daa ngeen ci am ay reportage alxuraan ngi di dakk xasde itam du dakk kuréel gaa ngi ci biir kër gi ak ñi nga xam ne itam dañ fi ñëw jàngkat yeeg ñoom ñëpp lenn du ci dakk sëriñ Ablaye Tagué mi nga xam ne mooy borom këru soxna Momy kebe ni mu ko baaxoo di defee at mu jot bu ñuy waajal màggal gi day jàpp bis yendoo ak ndongo yi nga xam ne ñoo nekkoon ci kër Serigne saaliw ak jëwrin yi teral leen waaye jox leen ay xéewal yoo xam ne daañu ko mën a yóbbu ngir waajal màggal gi. yéen tey ñoo bokk yendu ci kër gi màggal gi des na ñaari fan waaye gis ngeen sëñ li ëpp ci ñi nga xam ne boo mësaan teg sa tànk ci biir kër Serigne Saliou tey ñun ak ñoo ma yendu nga xam ni da day fës nii rek ci màggal gi màggal gi waaye lu muy def milaaran la man mii seere naa ci lu baree bare buñ fi bokkee nekk ñun ak waa kër Serigne Saliou yooyu ñooy bokk nekk fii ci kër gi. mu leen di defal di leen teral ngir jëmmi Serigne Saliou mi nga xam ni moom lañu bokk tey jii ci loolu la ñu yendu ba ci waa waañ wi nga xam ni ñoom la ñu mujj recevoir. waa ñu kër Serigne Saliou ñoom lañu ñu mujj recevoir tey jii ku si nekk def nga témoignage yoo xam ni jombul dana am ñu ci wax ngeen xam diggante euh, kër gi ak njabootu Serigne Saliou. ñoom ndongoy Serigne Saliou yi jëf ji rëy ci ñoom lool. kàddu sant la ak kàddu ngërëm ci pas-pas bi nga xam ne moom la Serigne lay am ci jëmmi Serigne Saliou loolu. diirub li mu ànd ak sëriñ Saliou euh, mbas pasam day yokk saa su ne musta musta dellu gannaaw loolee da ko topp ba gannaaw sëriñ bi noonee mu daan doxeek sëriñ bi mboolem njaboot gi noonu la koy doxeek ñoom di di joxe addiyam ngir jëmbi bi boole ko farlu lool ci teral ku ku laal ci sëriñ bi loolee moo sabab mu sàkku sunu teew ci moom Euh, teew gi nag dara waral dundal de wala rek sëriñ bi ak parce que ak taalibe gi ak xam ni itam ah sëriñ bi mi ngi ci mi ngi ci jëm ñu boppam de ak mboolem ñi nga xam ne àndoon nañu di liggéeyal sëñ Tuubaa loolee nag yàlla defal na ko ci ndimal loo xam ni ah, mosu ah, ci ci ak teewam. daanaka ah, daana ko feeñal bu wér a wér ba daana ah, woote sax ak cant sëriñ ngir lu ko sëriñ Saliou defal ci boppam loo xam ne nii def na ba jàpp jàpp ni jomb na ko ba sëñ bi daana daana ci def ak cant goo xam gi sëñ bi daana nu ci yebal ñu ñëw ñu ñëw di ko fekk foofee ca Ndakaaru ci cant yooyu mu daan def loolee nag ah, waxtu ne deltuwul gannaaw wax soxna moom yi kebe Euh, ko nga xam na ni euh, sëriñ bi euh, nam ko fam ko fam tegoon ngir jëmmi alaaji Babacar Kebe taxawaay bi am ci yoonu murit taxawaayam boobee moom it da ko feddali saa su ne ci liggéeyal sëriñ Touba ci jaami yàlla yi loolee nag li mu ci def lu mu ci def rek noo ngi ko noo ngi koy mm, mm, sant ñun waa kër sëriñ bi di ko ci gërëm ndax Euh, defalu ko kenn ku dul sëñ Tuubaa ñun dongoy sëñ bi ñun nag dañoo fare woon ci waañ wi bi fi sëñ Saliou di nekk mu taxawuñu woon lool amoon ci ñun yërmande lool amoon paspir lool ci ñun moom nag day def da daan jël alalam di ñu jox te jëmm sëñ bi rek tax moom Ablaye Tage daa am bés boo xam ni Baye Moustapha Diaw ndam si yàlla si dafa génn ci kees gi ñëw fekk ñu fi ñu nekk ñun suñu kees gi ne ñu si sëñ bi da laa jóge daa am lu mu doon seede ci yéen sëñ Saliou de daf ma ne a ah, li ngeen koy defal si këram gi metti na jafe na waaye na ngeen jàpp ne sant na leen gërëm na leen ah loolee nag ñu ànd kook Ablaye Tage mu sonn ci ñun lool di jël alalam di ñu ko jox te boobu day yitte woon nañ ko woon lool waaye nag ñun de maa ngi wax ci turu dongo yooyu ma àndaloon di yëngu ci Serigne Saliou day Ablaye Tage foo jublu yàlla na fa yiwu yàlla jublu waaye na nga jàpp ne ñun de li lay ñaanal mooy da fi yàgg da nga wér yàgg sa soxna moomi Kebe ndax yàgg ngeen taxaw dongay sëñ Saliou yi di yàgg taxaw bés bii. soxna Momy Kébé fas yéene màggal ni ko sëriñ bi santaane muy sant bernde ak jaamu yàlla. loole mu fas yéene ko ànd ak mbooleem taalibe yi ak yi nga xam ni ñoom ñooy ñëw di ko dalal. ñii nga xam ne nag ay soppeem lañu ñëwoon nañ ànd ak moom wàccaayug màggal gi. fas yéene koo defee nu kawe at yi weesu. كل شهر وفي سفر حماني على ماهن مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه